élection présidentielle bi ñu jëm ci 2019 ñun waa Louga ñu takku nek ben sey jox ko deuxième mandat et au premier tour ci anam bu gën a rafet am déggu leen ma dama ni mbokk yi. Deuxième mandat. Premier tour. Deuxième loolu mooy tax ci ci loolu ci loolu mbokk yi ngeen may ma ma tàllal loxo. jox loxo képp ko bépp kilifa bu nekk ci biir département bu Louga nekk kilifa APR am fi ay ndombay tànk maa ngi lay tàllal loxo di la ñaan ñu àndandoo joxante loxo liggéey ngir may président de la République ndam yooyu. booy dem ca làmb ja ndax xam sa bopp xam sa adversaire ki ngay jàkkaarloon dangay ngay gagné toujours adversaire bi fii ci Louga. tuddul Moustapha Diop tuddul Mamour Diallo tuddul Mbéri Silla tuddul Aminata Mbengue Ndiaye yéen ñëpp a ànd Benno Bokk Yaakaar adversaire bi ca làmb ja c'est l'opposition